waaye bi ci gën a garaaw mooy violence permanente fitna bu sax daayiman boo xam ne tey Macky saxal na ko ci réew mi te jubla jubla jubla ci na képp koo xam ne nee nga bokk maak moom gis-gis ak pas-pas fitna googu bi gën a dal bi gën a ci la ñuy dal ci métti léeg ci làmmiñ lay jógee boo tax même diine daf ñu ne sàmmante leen ak ndax seen deret seen der seen réputation kenn ku ne bosu moroom dafa sacré ci moom tey rek ngay dégg Sénégal fi ñu toll nii nit mën a dem télé wala rajo dugg ci vie privée jàmm wax ci lu bon a bon a bon a bon a ko xam Sénégal suñu aada du suñu diine du suñu état moo ne soo jëlee code pénal lañ ci bind ci lu lu jëm ci loolu kenn xamul mu toll. procureur rek bu defoon liggéeyam kenn dootu ko def kenn dootu ko def jamono ji rek nga ñem gis ku dem taxaw ci télé wala ne rey leen jiw procureur ne sama yoon newu ci te jamono jooju xale bu génn publier sur Facebook ñu ne la ñëpp dem dem tëj. publier ay reetaan reetaan émi émoticône lañ koy xool nga publier ko ñu la tëj la kaso te li gën a suuxat village boobu mooy impunité bi mu wax mooy soo tafoo ci Macky ku la neex saaga la ku la neex xasal ku la neex waxal bon ci moom dara la ñaareel màndarga violence boobu muy violence bu exprimer ci lépp loo xam ne neexul Macky Sall violence bi muy exprimer par exemple ci collectivité locale par ki démb bi muy bi muy def sa journée la politique dafa ne moom la soog mu téye les fonds de transfert loo xam ne constitution ak loi moo ko teg ne état comme moom li muy dajale da koy dajale ci collectivité locale bu ne muy TVA bi muy impôt sur les muy beneen l'impôt am na ci loo xam ne dañ ko war a delloowaat collecteur local loolu du sañ-sañu président mu naan maa koy dee maa koy joxe rien rek que pour métital collecteur local te soo métitalee collecteur local xamal ni lu maire bi nga métital ndax moom am na dépense waaye li waroon dem ci askan ngay xaj askan bi la ñu waroon defaree télé euh, tali wala ñu defal ko poste de santé wala école primaire dañu dox leen seen fourniture nga téye ko ngir politique rek parce que nee nga yaa ngi xeex Ousmane Sonko wala yaa ngi xeex Barthélémy Dias wala yaa ngi xeex Adama Sarr wala yaa ngi xeex Yankuba Diémé loolu ba ak est-ce que am na lu ko ëpp ci yoon wala ay Sénégal yu am sañ-sañ ñun dañu am loi boo xam dafa ne liberté d'association. tey presse bi am ngeen benn syndicat. waaw du sa connexion. saa su leen neexee. yéen mu neex ci yéen ngeen jóg ne dañuy créer suñu syndicat yoon moo leen ko may. la preuve sax am na administration yu bëri. dañuy dégg service dañuy dégg cap dañuy dégg keneen ak keneen mouvement citoyen ñaata la woon ñi ko fi njëkk a lancé benn lool tey ñaata mouvement citoyen ñoom. société civile ñaata la woon ñaata parti politique benn fi amul Sénégal benn tey ëpp nañu trois cent et quelques partis politiques. centrale syndicale CNTS lañ fi amul ñaata centrale la c'est la liberté kenn ku ne am nga sañ-sañ ne man ak diw ak diw bu ngeen matee ñett rek. am ngeen sañ-sañ ne ñun de ñoo bokk gis-gis ñu ngi sañ suñu association mu ñeme taxaw ne kii benn association moo fi am amul rek ci féer suñu neexee ñu kese yoon moo ñu ko may dañuy dalal xelam nag association bi am na te mënu ci lu toll ni dara mais loolu lan moo ko gën a rëy ak ñàkk xam lan mooy attribution président de la république inculture bi nekk ci président Macky Sall mosul am ci kuy président ci Sénégal Habib dafa wax problème mu man dama jàpp ni ñàkk xam-xam parce que saa su génnee ci feuille bi ko bindal war a taxaw rek wax dina wax lu ëpp wala lu matul loolu ñàkk xam-xam la xam nga nguur mun na dab nit nguur mun na dab nit kii nag nguur da koo dab moo tax tuutil mënta mënta mënta saa daal dañ ko góob loolu nañ ko bàyyi yàlla rek. menace ak violence sur les mouvements citoyens ñaata mouvements citoyens lañu jàpp seen leader parce que manifester gars yi wala wax nga lu neexul gars yi rek ñu ne lépp ci kaso bi sur la société civile lépp société civile muccatu ci la. ku jiite société civile wax ci immigration ñu ne ko rëpp yóbbu kaso menace sur la société wala violence menace et violence sur les réseaux sociaux parce que jàpp na ni li mu bëgg am peut ci média classique yi am na ko ba mu des média am na média yu bëri wax dëgg yàlla yu nekkul ci loolu waaye jàpp na ni am na loo xam ne mënul am contrôle ci loolu mooy réseaux sociaux nee sax day déposer un projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale les réseaux sociaux defe naa loolu Égypte laa ko fi dégg ak Chine ak les pays du Golfe ak te ñooñu ñëpp kenn mënul ne démocratie gisuma benn pays bu ñuy woowee démocratie moo xam ne tey yaa ngi naan da ngay naj nit ñi ci réseaux sociaux loolu du violence violence sur les médias médias en tant que groupe tey am na ay groupe yu am ay problèmes yoo xam ne ñu ngi leen di def lu nekk pourtant def nañ fi ay loi d'amnistie teggil groupe groupe média yi waaye menace également sur les journalistes qui pratiquent te li xew tey ki ñu bàyyi tey wane na ko. Mhm. te li ko yóbbu ci loolu gannaaw seen seen fànn ak askanu Sénégal li mu jël fitam daal di xeex moo tax ñu bàyyi li wax nii dafa am solo parce Cheikh Ahmed Tidiane Youm dafa ne Sénégalais yi dafa fàttali ni waxu kilifa diine ne léeg ak ni ñuy wëlbatee di wëlbatee aussi information Sénégalais yi dañu gis ko fayu ñoom duñu gis ko ku tooñ bés bu ne Macky Sall bu ñuy def violence Sénégalais yi duñ ko gis wala duñ ci wax waaye il suffit que ñu yëkkati suñu baaraam rek ñu ne violence bi violence sur les députés de l'opposition députés yi toog mën nañu seere ne bi ñu ubbee assemblée nationale ba léegi dégg bu ñu leen nekk assemblée man mii di wax xam naa ci dara honorable Déthié Fall na ci dara assemblée dugg ñu lay daggal ay saaga ci say wayjur ba keroog ngay génn assemblée te doo mës a di député opposition bu ko saaga da dugg assemblée ba ngay génn bu njëkk ba commission lañ ko doon def suñu ñëwee nag euh, plénière ñu yóbbu mais léegi journaliste yi couvrir sax dangay ngay toog biir biir plénière dégg ñuy saaga assemblée nationale te amul kenn kuy saaga lu dul député Benno Bokk Yaakaar violence boobu lan moo ko a rëy saaga nit ci ay waajur saaga nit ci kilifa diine bi saaga nit ci vie privée bi saaga saaga saaga parce que balaa ñuy egg sëñ Moustapha Sy man amul lu ma waxul foofu waaye man du kilifa diine mën naa nam di leen waaye ñu mën ak maa yow est yi dinañ jóg taxaw ñu def benn motion sénégalais yi ni bëggatuñu député bu ñu yóbbu yóbbu assemblée nationale fay saaga loolu mooy premier élément loolu ñu seetaan moo andi may wax nag ni ñaari ñaari groupe dinaa waxtaan ak ñoom ba ci njëkk mooy ku ñuy wax CEDEAO CEDEAO lu yàqu ci Afrique de l'Ouest moo ko yàq CEDEAO nañu yem seen place waa ji jël na avion dem fekk leen foofu ñu def seen syndicat chef d'état def seen délégation ñu naan des députés de la CEDEAO ñu ngi ñëw plus seen yoon balaa may dégg ñu naan léegi dañuy créer benn force militaire contre les coups d'état yow doo wax ci troisième mandat lay andi coup de yi doo ci wax doo wax ci troisième mandat doo wax ci xaalis yi détourné ci réew mi ci réew yi doo wax ci ñiy jël seen i armée seen i gendarmerie di rey ay nit nga ne léegi suñu askan wi taxawee ba ne bëggatuñu ñooñu yow da ngay andi force force boobu muy def day ñëw xeex ak askan wi waa CEDEAO dañoo yem seen place ñun soxlawuñu seen i leçon